asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li ci nar a gën a fës. bokk na ci li ci nar a gën a fës euh, lii di réew union européen jëlub dogal tere Sénégal ba euh, avion bàyyi ko fii daal di cëppeelu foofu loole nag Sénégal itam defaat nañ li ni mel dinañ ci ñëw ci yaataalu xibaar yi ànd ceeg ki ñu dënk lëpp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji mu ànd ci leeral loole tax na itam jàngat li ci horizon sans frontière am jàpp na nag loolee ndeykut la nga xamante ne da ko bett Boubacar Seye jàpp ne lii di union européenne ñoom ñoo war a waxtaan ak lii di union euh, moo war a waxtaane ak union européenne bu ko defee rek loole ñu mënta andi saafara wante nag Sénégal cote mënta régler loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lu jëm ci wàllu ruqe bi ñu nga xamante ne nag seen diiwaan daal dina ko def te leen waralu ko lu dul teer bi ak it ñàkkum assainissement ñàkkum cet ak yeneen marché yi nga xamante ne ñoo ngi foofee ca wàllu caaro yi jafe-jafe lañ fa daal di nemmeeku ba tax rek ñu daal di janoog way taskatu xibaar yi niki tey ji di sàkku ñu andi leen la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu canalisation loolee dinañ teg loxo gu yàgg gu ñuy def nit ñi ci ndungu si ni loole doon la nga xamante ne itam ay jafe-jafe la ñëw it yokk ci seen jafe-jafe dund tax na collectif bi nga xamante ne dafa jóg ngir rek daal di amal lépp lu jëm ci wàll wàllub toroxal gi police yi di def ci nit ñi loole ñoo ngi koy méttit lu rawatina ña nga xamante ne jamono si ñoo ngi ci biir ndungu siin loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono itam waa ànd gësëm ñoo ngi jàppal tànk ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykatu justice si nekk ci gërëw ñett ay fa ay bés a ngi nii ba léegi amut lenn la nga xamante ne jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub yoon daal na ci àddu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel ñu ci boole yeneen xeetu xibaar tàggat yaram wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllub dem beeg dikk boobee nga xamante ne réewum union européenne maanaam Schengen ni daal di wuñ ko nangul réewum Sénégal yokk ci wàjjaayu tabaski bi ak it lu jëm ci wàllu wàllub déclaration patrimoine ak mbas mi loolu yëpp mën ngeen ci àddu ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Alassane Thioune ma fete ci xarala gi. Birama Ndiaye sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk alxames yem ak fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet atum ñaari junni ak ñaar fukki yooyu xibaar ñu doore ko ginnaaw bu ngu réewum Schengen yi maanaam réewum Union européenne yi jëlee dogal ne réew yu bëri duñu wàcc foofee ci seen euh, tarmaku aéroport yi bokk na ci réewum Sénégal tax na itam kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu ñu lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi jaarale ko ci jaww ji ñoom itam def li ni mel yemoon fa sax gis nañu bépp réew ba nga xamante ne jël na dogal boobe jagleel ko réewum Sénégal duñu nangu mu wàcc fii ci mim réew leeraay yi ñu ànd ceeg directeur des transport aériens di Omar Khassimou Dia. li war a Euh, organisation de l' aviation civile mooy kuréel bi nga xam ne dafa ëmb réew yu bëri ci wàllum aviation civile moom moo digal réew yi ko boo leen di wax ak di jëflante euh, lu benn réew mi def na ko ki ci des def maanaam ngeen yem ci jëflante bi euh, kooku mooy principe de réciprocité moo tax bi mu amee ay réew yi nga xamee nii dañu décider ni yenn citoyen sénégalais mënuñu dem ci ñoom ñun tamit ñu décider ni ñoom seen ay citoyens itam mënoo ñëw ci ñun maintenant il faut savoir que euh, boobu décision aussi am na ay exception maanaam diplomate yi euh, ñi dawal avion yi euh, ak yenn nit ñi nga xamee ni seen liggéey dafa jëm ci wàllum santé et cetera ñooñu dañu nekk exception ñooñu mën nañ di dem di mais ñi ci des Euh, ci bii sens wala ci bëgg sens mun na doon di di mais nag il faut préciser que euh, ku ci nekk mën nga ñibbi sa réew maanaam bu amee euh, ku am sa passeport Sénégal wala nga am sa résidence Sénégal nekk ci réewu Union européenne mën nga ñëw Sénégal ku nekk Sénégal aussi am résidence wala passeport bu bu benn réew ci Union européenne mën nga ñibbi ci sa pays de résidence. ay waxtaan doxoon na seen diggante jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji jaarale ko itam ci affaire affaires étrangères ak Union européenne fan ngeen toll ci waxtaan yooyu lan moo ci tagga témbe waaw euh, waxtaan yi euh, waxtaan nga woon rek pour que ñun ak ñoom ku nekk wax euh, ni ngay xeexee mbas mi yan mesure nga jël ak booy ubbi sa aéroport euh, yan décision ban protocole ngay appliqué euh, ku ne ci ñun expliqué nga ko euh, waxtaan woowu c'était pour que képp ki nga xam ni yaa ngi jël dogal da ngay jël dogal bi fekk xam nga ki ci def bi muy def waxtaan yi nag bon dafay continuer jeexagul parce que waxtaan yooyu du ay waxtaan yu yu gàtt waxtaan yi day continuer mais daal en attendant képp réew muy réew Europe muy réew beneen beneen beneen continent bu décider nii dafay def restriction ci ñun ñun dañoo décider def restriction ci euh, réew moom dogal boobee nekkut la nga xamante ne lu bett la njiitalu euh, Horizon Sans Frontières moom Boubacar Sèye mu jàpp ne nag Union africaine moom moo war a fexe daal di door la nga xamante ne moom mooy waxtaan wi euh, sekk koog Union européenne ndaxte gis nañ ne nag Sénégal kott mënta xeex li ni mel ba tax rek mooy sàkku ci yeneen réew yi rawatina yu nekk ca kuréel boobe ñu daal di bott ci ginnaaw Sénégal ngir rek ñu daal di am lu ñu bëgg Boubacar Sèye ñu teewlu ko xam see décision union européenne daf ñu bettul benn yoon parce que du dara lu dul yebaate ak mépris bi nga xam ni tey ces dirigeants là am nañ ko contre le continent africain damay rappeler ni cette décision là amul benn critère d'objectivité du dara lu dul une façon de lutter contre l'immigration tey le Covid 19 tout simplement prétexte la parce que nan nga mën a comprendre que ni feebar bi li mu def ay dégâts Europe daf ko ci dëkk yi ñi nga xam ni ñoom ñu tere ñu dugg fa nan nga mën a comprendre que tey premier cas déclaré au Sénégal officiellement c'était un Français moom la ñuy wax un cas importé kon tey di Union européenne su nee tey ay ñu dugg foofu je crois que non seulement yebaate la mais je crois que c'est de l'arrogance mais aussi li leen ko loolu moo indi wax bi beneen bi le Sénégal tey na réagir mais ñun dañ koy rafetlu parce que le Sénégal est un pays souverain mais ni mu réagir du noonu xamoon nañ ne lii lay mujj parce que ça a été une faute stratégique très grave tey Sénégal li mu waroon def fexe ba diligenter une réunion africaine pour que mu am une réponse globale à l'échelle du continent mais Sénégal dafa ko le Sénégal a fait le jeu de l'Union européenne qui consistait à diriger pour mieux régner mais tey fay na lii nag li mu ñu war a jox comme réflexion Afrique moo war a am fulla jël ses responsabilités dans l'ère post coronavirus Afrique moo war a am ay fula wóolante on parle de géopolitique régionale noonu la Europe daf tey ba organisé wu. africains yi kenn respecté wu sa morom africains yi tey su kii waxee euh, kenn wóolu sa borom pour liggéey ensemble loolu moo indi tey décision gu mel ni su ñëwee ñoom ñëpp dañuy jaaxle et ni gañ ñoom ñëpp dañuy perte tey l'union africaine moo waroon wax ak union européenne pour respecter comme ni ma ko waxee le parallèle des faits malheureusement dafa ñu ko et aujourd'hui c'est le prix à payer donc nag il faut que xalaat. à l'avenir comment il faut harmoniser leur position pour faire face aux défis de la mondialisation parce que l'ère post-coronavirus nag la notion d'interdépendance asymétrique symétrique yooyu yëpp day am ay problème ba tax na ku nekk il faut que nga xool ngay jëlee en charge tes propres préoccupations sinon soo ko dafa lekk et actuellement c'est le cas du Sénégal di kàddu Boubacar Seye Horizon Sans Frontières di ngeen ci mën a àddu ci njeextalu xibaar yi lay doon seen diiwaan daal di ruqe lool loole leen waralu ko lu dul liggéeyu teer yi ñàkkum assainissement cet gi wax noppi marché yi jëm ci wàllu wàllub njaayum léjum yi foofee ca caaro gis nañu nag ndox yaa ngi fay tak ba tax rek ni ki tey ji ñu daal di janoog waaye taskatu xibaar yi ngir fësal seen ñëg-ñëgu xol ci fànn boobule di sàkk ñu defal leen ay canalisation ci boobee jamono ak it lu dem ci wàllub dem beeg dikk bi ñu def ay doo daan ci tali bi Daouda Cissé moo nekk président association boobee ñu teewlu ko ak El mooy dañoo sonn te coono gi li ñu bëgg mooy président Macky Sall xam ne dañoo sonn moo tax moom lañ bëgg a njëkk a interpellé parce que moom mooy jiite réew mi di ci teg ministre am muy Abdou Karim Fafana waaw ak APIX ak ONAS aussi bëgg nañ ñu dégg li ñuy wax ndax li ñu dal yëpp ñoom ñu ko teg Macky Sall caaro yi muñal nañ ko li ñu ko a mu départ ñun commerçant yi amuñ benn revendication bu ñu def ci moom boobu ba léegi mu ngi ñu impacté tëj ñu mënuñu dem mënuñu dikk boobu ba léegi ñu ngi toog di ko muñal léegi nag loolu dañ cee sonn liñ bëgg mooy mu wax ci ñu ubbi marché bi ubbi yoon yi nit ñi liggéey APIX si jël na benn buntu marché bi tëj ko liñ bëgg mooy mu ubbi ko dafa tëj benn buntu marché bi parce que liggéeyu teer bi moo tax liñ bëgg mooy mu ubbi ko parce que fi mu toll nii importateurs yi dañu sonn actuellement carotte mu ngi waaj a ñor te liñ bëgg mooy ñiy importer carotte dañu war am ay conteneur yu fiy dugg soble day duggal ay conteneur liñ bëgg mooy ñu tijji deuxième buntu marché bi marchandise si mën a dugg ñu mën di jaay normal parce que boobu ba léegi jaayuñu li ñu am yëpp jeex na jeexal nañ tàkk dañoo muñ ba sonn parce que ñun liñ gis mooy que ni situation bu doon maire moo ko doon lijjanti lijjanti ko bu yàgg ndax depuis 2007 lañ fi dugg ba léegi chaque année lii lañ nekk at bu ñëw gën a metti moromu léegi nag liñ bëgg mooy na président dugal loxoom jox ministre mi nga xamante ne ñoo yor compétence bi ñu wax ak ñoom ñu liggéey ñu marché bi ñu nekk si jàmm. góom bi mooy ndox mi ci biir marché bi marché bi dafa bëri ndox amul fu ndox jaar pour génn ndox mi amul fu mu jaar amuñu assainissement amuñu canalisation amuñu dara maire ñëkkoon na fi def ay canalisation yooyu baaxut yi mu reféeraat ba ko defar yooyu moo gën a bon ñu bëgg nag mooy ñu fexe pour ñu canaliser ñu marché bi moto pompe dañ cee doyal bëgguñu moto pompe canalisation lañ bëgg ñu canaliser marché bi te leneen liñ ciy dolli mooy que ni pare nañu caaro yëpp dana ko pàkk lëjum ba fii responsable wala nga fii commerçant pare nañ pour ànd nekk benn ci intérêt caaro yi premier temps mooy li ñuy def mooy bu ñu bu ñu joxul li ñu bëgg danañ téye suñuy loxo waaw dootuñu fay taxe te waxuñu fay taxe rek yem ci mais bu ñu téyee suñu loxo fay ñu taxe bu loolu doy dañuy tëj marché bi ñun commercant yi pare nañ pour kenn ku nekk tëj place ñu tëj marché bi bañ a liggéey préavis de grève dañ ko dugal bu délai bi jotee bu ñu jox li ñu war a jox danañ arrêté taxe yi bu ñu dimbaliwul ñu tëj marché bi carrément Daouda Cissé moo yor kàddug association commerçant yu nekk foofee ca Thiaroye ja nekkin gu jéggi dayo la ñu nemmeeku ñooñee nga xamante ne dañoo nekk ca ndungu siin ñàkkum visite ak it lii di dund gu sell gu matalewul collectif bi nga xamante ne dafa jóg ngir xeex bépp xorñooñal ak méttital yoo nga xamante ne way takku der yi ñoom ñoo koy teg nit ñi loole ñoom ñooy méttit lu loole ba tax rek ak it la nga xamante ne moom moo jëm ci teg loxo gu jéggi dayo gi ñu nemmeeku ci ñooñe niki tey ji la ñu jënog way taskatu xibaar yi ci teewaayu xaddi seen ñàkkum yoon ak violence bu policier di teg ñu caabi féete ginnaaw mi ngi woy bu ñu yeewoo la matin man bu ma demee si douche bi di brosse fekk naa dee na te non seulement dee bi dafa atroce mais demaale na neefere na foofu pour wane que ni dee bu atroce la def. nekkin bi fee métti loolu nag léeg-léeg garde yi dañ lay doon dóor la dañ lay dóor torturé la. cicatrice boo yóbbuwul prison ñoom garde dañ la koy def. muy ay témoignages yu wayjur ak tamit ñoo xamante dañu leen di tëjoon ñàkkum visite bi ndax coronavirus moo ñëw rek dolleeku si. depuis bu feebar bi duggee si dëkk bi ba tey dañu arrêté visite yi dund yi duggatul ça fait mois boo demoon tey si kaso yi ñu bari ñu ngi développé ay carence de vitamine parce que da ngay dégg chaque jour sax ñu naan sama yaram day metti sama bopp day metti damay miir c'est parce que non seulement lekk ñu lu baax mais lekk bi tamit doyul te ñu ngi tere mbokk yi ñu andi ay lekk moo ne dañ boutique bi day jënd ay bagages si biti di ko andi si biir. visite amul lekk bi nga xamante ne njaboot gi ñu leen ko doon indil loolu yëpp nekk situation boo xamante ni jaaxal na ñu caabi féete seen ginnaaw ak seen waajur ndax ñu ngi dund lu metti sama doom dafa nekk prison Rebeuss yàgg na fa lool def na fa un an dugg ci deux ans woowuñu ko enquête àttewuñu ko ma fa doon dem nag dem bi jafe na mënatuma faa dem mënatuma cee jot mënatuma dékkanteeg moom te foofu li ma fa gën a naqari da ngay jaayante yóbbu dund pour sa doom muy Amadou te boo demee dañuy wax lii day dugg lii du dugg dañuy bëgg ñoom nga leen di yónnee xaalis. mais fan ngeen gisee kaso boo xam ne dafa may ga c'est parce que ils y gagnent dañuy profité aussi vulnérabilité détenu yi ak seen pression bi leen rek di leen di jaay may ga bu nekk ci ci kaso. collectif pour la justice contre les violences policières di woo rekk njiitu réew mi waaye tamit képp koo xamante ni dangay aar ak ak fu doomu aadama. billaahi lu waay mun a def. jaayante ko ba bañ a teg fële sa tànk na ko jaayante parce que fële na la beneen affaire la fële beneen affaire la. beneen affaire la xaddi seen ak it ñooñee nga xamante ne dañuy xeex ngir rek gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu nekkin ñu nekk foofee ca ndungu siin alliance syndicat autonome de la santé des ASAS ànd gësëm ñoom nag ñoo ngi fas yéene jàppal tànk liggéeykatu euh, yu yëngu ci wàllub yoon ngir rek ñu daal di gësëm seen jëwriñ mu àddu ci seen mbir ñoom itam gis nañ ne loole dina am njeexital gu am solo ci askan wi rawatina ñi nga xamante ne dañuy utub kayit fi mu ne nii nag faaw ñu daal ci andi saafara nu mu gën a gaawee àddu ci seen tur Adama Ndione. waa justice vraiment euh, ñu ngi leen li nga xamante ne coono la coono bi nga xam ne kenn mën nañu ko teg mooy ministre de la justice mi nga xamante ne ba mu ñëwee fekk na waa justice dañu négocier ak gouvernement am accord ne dinañu appliqué maanaam seen revendication lañ ci jël saafara am décret boo xam ne gën nañ njiit réew moo war ko appliqué mais yow boo nekkee ministre waaw léegi yow nga ñëw nekk ministre di euh, takkal la ndombal mais si dëkk ñëpp a ci nekk population yaa ngi ci travailleur yaa ngi ci ñëpp a ngi bu président joxe ndigal ne nañu def yow nga ne doo ko def ndaw ne syndicat boo xam ne yoon moo ko reconnaître moo am sañ-sañu revendiquer ne doo leen recevoir xanaa di di leen di tànn ñeneen ñu la neex di leen recevoir à la place du syndicat bi posé plateforme bi ama loolu affaire naa feqal te ñun loolu duñ ko mën a toléré ci réew mi gouvernement daf fi nekkal pour bu fekkee ne dañoo fudal soirée revendication askan bi war nañu xam ne justice bu ñu bréwee dafa am ay impact su bëgg a casier judiciaire wala yeneen papier da nga am problème entreprise bu ñu bëgg a créer maanaam dem créer registre de bu fekkee ne moom amul problème boobu war na xalaat ni ay milliers de sénégalais am nañu soxla ci service public justice ba tax na ñu war a ko fullaal wala ko faydaal mais li ñu gis mooy yaa ma teel yaa ma neex doxal yaa ma neex loolu moo a jeex ministre du lu dul nekk service population bi mënoo ko di tekki bal dombal tànk wala yo bu dee yow mënoo dem demal sa bopp ñi réew mi démettre la teg fi keneen loolu mooy solution dafa doy léegi ñuy seetaan ay situation yoo xamante ni ah ministre bi ñu bëgg a ñaan ci kaw nit ñi pour lan yeneen réew yi ñu ngi fii ñu ngi lay am na réew yoo xamante ni mais lii c'est inimaginable a ah, nga nekk secteur boo xamante ni accord la ñu demandé ñu appliqué accord yooyu gouvernement bi boo ko signé te yow nga bokk ci gouvernement boobu nga ne doo ko di def lu la neex loolu ban na mel ni moom mënul dafay daw rencontré taweer yi parce que mënul négocier mënul gérer problème bu fekkee ne mënul bu fekkee président bi ñoom moo gën moo gën di kàddu Sidya Ndiaye noonu addu ci ànd gësëm lu ëpp ñetti téeméer ci ay gune yu nekk ci xàll yi rawatina ya nga xamante ne dañoo fàqee seen kër yi lañu ñu daal di génne ci xayma ñoo ngi toll ci ñaar fukki euh, junni gune yoo xam ne nag fi mu ne nii ñoo ngi ci biir xàll yu fii ci Sénégal tax nag kuréel yi nga xamante ne dañuy jóg ngir daal di aar gune yi ONG yi ak société civile doon taxawaay gu am solo ba nga xamante ne ñoo ngi ko ciy def ngir rek daal di fexe gune yooyee ñu delloo leen seeni i jur niki tey jii nag la ñu daal di am ab ndaje ngir tàggat euh, xam-xam yokk leen ñay liggéey ci wàllu aaru gune yooyee ci teewaayu Aysatu Gueye ba. lu toll ci cent mille xale di nekk ci mbedd mi ci contexte boo xamante ne mbas mi mi ngi gën a law fii ci Sénégal loolee tax nag li di programme zéro enfant ci mbedd mi daal di rek ñëw ngir toppatoo xale yooyee Sy mooy directrice bu SAMU social. donc euh, de avril à maintenant on a récupéré plus de trois cents enfants de, la rue ñoo xamante ne jëlee na leen ci mbedd bi placé leen pas seulement au SAMU social parce que ñu on n'a pas cette capacité mais dañ leen placé au SAMU social ak ci yeneen centres yi voilà yeneen centres yi donc si xale yooyu ñu placé si centres yi am na si ñu bari yoo xamante ne ministère bi yóbbu na leen ñu ñibbi ñibbi nañu en famille am na xale yi nga xamante ne des nañu ci centres yi am benn prise en charge psychosociale boo xamante ne moo ñuy permettre euh, ñu mën leen dimbali ak aussi ñu mën a rechercher seen famille yi pour mën leen delloo seen kër. ab programme boo xam ne nag daanaka début avril la tàmbali. waaye mu ànd ak ay jafe-jafe. problème bi ñu amoon mooy nombre d' espace bi parce que bu ñu commencé opération yi même pas un mois. centre yi fees na donc on ne pouvait plus récupérer ay enfants donc il a fallu ministère bi jàpp si delloo ñu retourner en famille beaucoup d'enfants pour ñu mën a commencer opération de retrait deuxième contrainte bi c'était que aussi on a rencontré si mbedd bi xale yu bëri yi nga xamante ne dañu dépassé woon âge bi nga xamante ne moo leen mën a dugal ci centre yi voilà parce que centre yi d'habitude ay mineurs la ñuy jël. lu ëpp 300 xale daal ci mbedd mi Diouf mooy président CONAF Sénégal. doyul bay waaj a doy parce que xale yi dañu war a jógee ci mbedd mi li ñu jël tekkiwul dara par rapport ak nombre xale yi nekk ci mbedd kon donc li ñuy wax mooy ñu gën a accélérer avant la fin de la semaine. loolee tax nag kii di état société civile ak ay ONG daal di lëkkaloo ngir rek mën a yor xale yooyee li ci mel ni nag daal leen yóbbu dugal leen ci ay centre d'accueil Alioune Badara Samb préfet du département de Dakar. bu ni ma ko waxee état bi am na centre yoo xam ni moo koy yore ay ndawam yu mel ni centre sauvegarde di ngeen xam yu mel ni centre bi am solo muy gindi fi nekk fii ci Castor mais également am na yoo xam collectivité territoriale yi ñoo koy yore muy ku mel ni ville de Dakar am na centre centres yoo xam dañ koy utiliser ak yeneen centre yi nga xam ni comme euh, dafa dépendre ci euh, société civile bi ñoom ñëpp ku ci nekk pratiquement am nga bërëb boo xam ne da ko teg ginnaaw bu juróom bu ginnaaw bu ñaar fukki simili tegoo ci juróom-ñeenti waxtu ca ngoyo Ngoyokop nekk ca commune bu Ngéñeen département bu Mbour foofee la ñu jëm lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari kit alimentaire ci xayma juróom-ñetti million ci suñu koppar la ñu daal di jox dawalkatu woto yu nekk foofee ca gare routière bu Mbour loole moo ngi amoon ci teewaay joriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ndimbal lu bàyyi ko ci nguurub Sénégal ci jamonoy mbas mi Sow séddale ndimbalug coronavirus ñi yëngatu ci wàllu dem beeg dikk bi nekk ci département bu Mbour daal dina ni jot seen wàll yeesalub lëkkale boo xam ni bii ci jàppalante la diggante nguurug Sénégal ak ñi nga xamee ni am nañu loraange ci mbas mi Mbour departement la bu nga xamee ni ñi nekk ci wàllu dem beeg dikk bi jot nañu toll ci juróomi téeméeri kit ak juróom-ñett fukk ak ñaar suñ koy xayma ci suñu koppar toll na ci juróom-ñetti million ndajale bu nga xamee ni ñu ko doon amale ci gaaru bu Mbour foofee itam jëruñ jëre wàllum dem dikk bi yéy na ci loi bi nga xamee ni moo tënk wàllum transport sport maître ñëw ci contexte boo xam ne ñëpp xam nañu ko dafa am feebar bu am Sénégal feebar boobu jeexagu fi feebar boobu ñun ñëpp ñoo ko war xeex feebar boobu nag dañu ko war xeex au niveau du système de transport particulièrement le transport public ñuy xool gaaru ceeru mbuur bi ni ñu waxante woon ak ñoom bi ñuy ubbi transport interurbain ndax ñu ngi sàmmanteeg moom ba léegi beneen app bi mooy dafa am loi bu bees boo xam ne nii loi la bu beneen bi mooy solidarité ku nekk xam ne président rabi dafa gëm solidarité ndimbal yooyu nag yegsi na ci transport chauffeur yi tey andi nañ leen kit alimentaire gannaaw bu président yëkkatee huit millions jox ko gare jox nañ leen cinq cent quatre vingt kit alimentaire kit bu nekk am nga valeur soixante-six mille francs ci wàllum déclaration de patrimoine bi nga xamee ni njiitu réew mi daal na ci yee yàbbi jëmale ko ci ministre yi maître Omar Youm jëruñ jëre wàllu dem beeg dikk bi nee na def na ko ba noppi wax dëgg yàlla man tax na sax bi jëwriñ ji yore wàllum dem beeg dikk bi di yeeyaat yàbbi ci li nga xam ni jëm na ci fàggandiku bi ak digle yi nga xamee ni nguurug senegal tëral na ko ngir xeex coronavirus Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow Mbour boobee la ñuy des ngir rek daal di laat lépp lu jëm ci wàllu koom ki groupe Kirène lëkkaloo ci. Euh, daal na ci ànd ak euh, lu toll ci juróomi euh, parfum boisson gazeuse yi nga xamante ne fa seen nañ ko def lu toll itam ci fukki ligne ak ñett ci woto yuy dem foofee ca Diass lañ ci daal di nemmeeku ak it lu toll ci ñaar fukki junni ak ñeent kanet la ñuy xel di defar waxtu bu jot foofee investissement bu toll ci juróomi milliards ñu ànd ceeg Amadou Moustapha Dia donc cette fois-ci dañoo dugg ci benn partenariat boo xam ni boisson gazeuse lay Pepsi Cola. ci jamono ji nga xam ne wàllum koom-koom xaw naa na sax li ko waral moo di Covid 19 bi. groupe CREN daal di taxaw temm ngir soxali koom-koomu réew mi looloo tax mu daal di nikki tey njaayum kanet boo xam ne dina ci mën a suqali bu baax koom-koomu réew mi jaare ko ci liggéey boo xam ne fii lañ koy defaree ci réew mi niki noonu it di fi jël ay xale yoo xam ne dañuy xëy ci seen usine ba nekk ca jaas jas Amadou Bachir Diaw responsable secteur la te CREN donc lépp lu ñu ciy defar muy Pepsi bi muy Seven Up bi ak yeneen produit yëpp fii nii Ndiass à soixante-dix de Dakar mm-hmm. la ñuy produire lépp ay sénégalais ñoo fa nekk plus de cent personnes. day am ligne de production bu bees te loolu day indi emploi yu bees direct comme indirect. crise suñ si nekkee tamit du dañuy toog di seetaan. dañu war a def luy tax crise bi bàyyi. donc il faut que ñu ñëpp ñu jóg yëngatu bañ que crise bi. moom lu ni mel nag ñi ngi ko def ci lëkkaloo bi ñu am ñoom ak waa Pepsi Cola ngi daal andi ay xeetu boisson gazeuse yoo xam ne yu mucc ayib la te saf bu ñu sukkandikoo ba léegi ci Amadou Bachir Diaw bu ñu koy limal Pepsi Seven Up gamme Miranda Miranda bi nag am na ananas am na orange am na tamit fruits yi cinq parfums yooyu lañ nekkagum donc des canettes de 33 centilitres ci wàllu njëg yi muy xam ne ne doon na njëg yoo xam ne yu jàppandi la donc prix bi dañ ko adapté au prix du marché sénégalais bu jóg naan day naan canette 300 francs ngay fay donc fa lañ ko bàyyi. xeetu boisson yi lee méngoog jamono amit loo xam ne bàyyi na ci xel jëm ci wàllu kaaraange ba ki sax wàllum wérgu yaram. am nañu responsabilité boobu duñ la wax amul suukar ba pare di ci def suukar donc bi amu Pepsi Max bi. pour diabétique la pour diététique la nga xam ne bëggul naan suukar mu jël ko loo tax ñu dafal ko ko. projet bi la nga xam ne diiru ñaari at a ngi nii ñu ngi koy liggéey daanaka juróomi milliards ak lu tekk ci ay koppar lañ ko taxawalee. niki noonu am na yeneen xeetu feem ak i fent yu yees yoo xam ne ñu ngi ñëw ci ginnaaw ngir gën a jege askan wi di leen jox li ñuy naan loo xam ne dafay baax mucc ayib te saf sàpp. Pepsi bi ku ko mos ak Miranda bi ak Seven bi li nga xam ni c'est différent de tous les produits yuy existé fii tàggat yaram la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi bokk na ci lii di JO olympique yi nga xamante fa fas nañ ko amal. ci Sénégal fa yokk nañ ko wala boog daal di nañ ko pousse ba deux mille vingt six Sénégal ak comité international olympique ñoom nag ñoo jël boobee dogal ngir rek daal di pousse la nga xamante ne moom mooy ñeenteelu édition Jeux olympiques de la jeunesse bi ñu fas yéene amal ci atum deux mille vingt deux décision boobee nag lu ko waral bokk na ci mbas mile ak loraangeem ba tax rek ñu gis ne loolee dina tax Sénégal daal di wéyal la nga xamante ne moom moo jëm ci wàccaay gi bu baax a jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram moom moo ci addu dinañ ci addu di ngeen ci ñëw ci di ngeen ko teewlu ci suñu xibaaru français yi ngeen ànd ceeg Ismaïla Marcel Kouly yi sant leen gërëm leen ñu woote ak ñu jotuta woote ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant fàttali li fi gënoon fës ci xibaar yi bokk na ci dogal gu nguurub Sénégal jël ginnaaw bi nga xamante ne nag lii ji Union européenne daal na ko tere mu wàcc foofee ca Espagne Schengen espace Schengen foofee itam directeur des transport aériens bu Sénégal teewlu ngeen ko ci yattalu xibaar yi loolu itam doonut la nga xamante ne lu bett la ci kàddu yi njiital Horizon sans frontières mi jàpp ne nag réew mu africain yi ñoom ñoo war a booloo waxtaan ak lii di Union européenne Sénégal cot mënul xeex loole ak it ñëw nañ ci li nga xamante ne moom moo jëm ci tegub loxo gu métti gu ñuy def nit ñi foofee ca ndungu siin ak seen euh, dund gu sellut loole itam ñi nga xamante ne dañoo jóg ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu ak toroxal ak xorñooñal guy bàyyeekoo ci way takku der yi ñoom ñoo ko fësal ni que tey ji ci ngoon la ñu janoog way taskatu xibaar yi ànd ceeg waa ànd gësam ñoom itam ñooy jàppal tànk waa sud gis ngir rek jëwriñ gi ñu denk lépp lu jëm ci wàllup yoon ñu daal di ko gësam ba mu daal di addu ci seen mbir loole boole nañ ci yeneen xeetu xibaar jeexale ko lii di wax sa xalaat gërëm bu baax Assane Thioune mi fettoon ci xarala gi ci kanam tuuti xab sa limaan wan ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon